damay wax ne bàjjenu gox yi dañu war a am rôle ñu delloo si nijaayu gox yi parce que bàjjenu gox yi xoolal liggéey bi ñooy liggéey mhm. kenn du leen fay kenn du leen travail remarquable kenn du leen xool mais fu mhm. violence fa la ñu guddee jafe-jafe jël seen i paas bopp hein? jël seen i moyen bopp di dem di taxawu askan wi di leen gingi di leen jàppale donc comme ni ñuy defee man je me dis que la fois dernière euh, euh, réunion bi ñu amoon à l'interne mhm. dama ne bàjjenu gox yi dañ leen war a jox salaire comme ni ñuy joxee chef de quartier salaire parce que ñoom naam mën nañu liggéey loo xamante ne chef de quartier mu ngi ca nga you ko ñoo whatsapp remercier autorité locale ku honorable député maire Ablaye Diop. promotion mais la dernière phase la semaine dernière. Mhm. les sama xol bi on a eu l'écho. absolument sama mhm. xol mais j'ai dit c'est des choses comme ça ñoom du subvention la ñu soxla. Mhm. dañ leen war a jël di leen fay. di leen fay des salariés boole leen ci mairie vaccination amee. Mhm. ñoom ñooy sensibiliser yaay yi ben ñu accepter génn seen doom ñu vacciner leen. te xale bi su vacciné woo am na lu koy mhm. mais ñun ñi aussi nekk dans les réponses associations. yi. da ngay xool état sax du la accompagner. non non association yu bëri. xoolal ay ONG international des radios privées comme vous. nga xamante da ngeen di def liggéey bu considérable mm-hmm. dañu war a accompagner jox ay moyens yu am solo ngeen di dugg si ruqurukaan tey ji zone bi ngeen nekk chaque quartier war ngeen fa def émission dem toog sa délégué bi toog bàjjen yi toog di wax di sensibilisation du doy jàppale boobu nga wax bu ko état defoon léegi léegi xëy ndaw sotti absolument ndax ñu jàppale xale yi defal formation et tout donc état bu ci dugaloon loxoom léegi léegi yëfi sotti non dama ñuy jël Aminta Diallo. di ko dóore ñu maa. te loolu nañu bañ absolument mhm. nañu bañ ñu ma su amee promotion. ne bu ma benn jigéen wër suñ ma wëree dañ may xoqatal dañ may faagaagal. duñu bëgg ma avancé kon naa jël ay góor ñu wër ma. Mhm. xoolal même man ci métier de la culture bi ma créé association bi. Mhm. c'est à cause de plusieurs frustrations. Mm-hmm. Mais quand j'ai créé l'association, en trois mois, j'ai eu presque 3000 adhésions et c'est un peu partout dans le monde. ACE est représenté dans 90 pays. Ay est ñun ci mm-hmm. Mais luñ lay wax, aminta ñun mënuñu am manager bu jigen. Aminta ñun mënuñu am euh, staff bu ay góor ñoo ñuy coacher ñoo ñuy manager ñoo ñuy produire ñoo ñuy exploiter ñoo ñuy promotion canapé ñoo ñuy ñoo ñu ba nga xam ne da nga gis ay star yu mag yu versé dans la drogue ou bien yu xaru ñu ne kii li mu am ci alal yëpp muy xaru te xamoo li nekk au fond violence yu bëri yu ñuy subir ñu leen di violer ñu koy nëbb ñu leen di dóor ñu koy nëbb

Euh, le mal est profond ci donc est-ce que jotul ñu def retour à la source ñu waxtaan ak ñi nga xamantene ñom peut-être way changer le mode d'éducation comme ni ko la fois dernière émission à la maison papa daf ñuy wax ci mm-hmm. ci elle sera toujours leader mais pour lui dire que euh, peut-être ma euh, tu n'as pas le droit à la parole nga yalé non sa doom au fil du temps day dem ba day dans sa euh, psychologie que warul nit elle a droit euh, à la parole wala wala est-ce que revenir absolument bu baax xam nga man damay je suis né leader ñu yow man xam sama uh-huh. bëgg sama uh-huh. di jox sama jox c'est dans la tête Mhm. tey jii tey da ngay dajeeg ñoo xam ne ay doctorant lañu am diplôme yu dul jeex mhm. mais dangay ngay mën lu bëri

vraiment une reconnaissance de la tout à fait so traité jigen bu bax rek. Mhm. muy sa muy sa jabar muy sa rak muy ki nga sa collègue. Mhm. parce que tout à fait mais sa mhm. say badjan, sa est jigen mais bu ba penc yi dafa suñu mam yi dañ fe jur ñu bax jur fi ñu de de grande quelqu'une. ay femme, yu un peu partout dans le monde parce que il y avait cette cohésion amoon cër boobu malgré que aada ak cosaan mu ngi fi woon mais xamoon nañ ne jigéen ñi war nañu mun a percer mm-hmm. ça commence à être révolutionnaire mm-hmm. mais soo waxee lu bari sax ñu ne la féministe féministe nga on accepte d'être défini féministe sans problème ah. sooy kaas sax mm-hmm. di wax naan nañu jox cër jigéen de na donation ñu ne yow da commencé nga dugg ci féminisme mm-hmm. mais y'a ngi yor sa kër di sëy amna ben benn kilifa bu mag bu fa yoroon benn responsabilité fi Sénégal mm-hmm. mais xeexam yu bari yi mu don def c'est contre les violences parce que malgré que nek na kilifa bu diplômé bu gradé bu nek si niveau national voire international mais li mu doon dund ci bir këram mënu ko won nettali donc il fallait mu def ko bataayam baton euh, de pèlerin Ken ku nek si ñun ñii nek ci xex su pour ñu éradiquer violence yaangi subir violence nga koy subir ci sa voilà wala subir ko sa famille wala subir ko sa wala subir ko psychologiquement wala subir ko professionnellement cest une forme de violence dafa tay tongonte rek ñuma violence violence la tout à fait ñun mhm. fi mhm. fi ngay nit ba nit ki léegi le plus souvent surtout yi day fiñu fi ñu waroon fa lañu yakko nga gis nit di jëw moroomu jigéenam uh-huh. ku melni ñu ma jël euh, vocal bi transféré ko Adja Aminata nga gis euh, njeexital bi muy def ci ci loolu tamit est-ce que mais ñu maa man man Aminata Diallo damay wax uh-huh. même kilifa bu mag suñ la bëggé daaneel jigen lañ lay booleel pour mu ñow charmer la def loola musiba uh-huh. ñu filmer la pour utiliser la ko. tey jigéen ñi yëpp ñoom loolu moo leen daaneel absolument tey jigéen tey. Mhm. dañ euh, tongu wax naa tongu. Mhm. wax naa violence verbale. saaga yu ñaaw. Mhm. c'est très rare nga koy dégg ci sama doom yi góor ñi suñu càmmiñ. saaga bu ñaaw mu gën a ñaawee ñu génnee ko mais xoolal si niveau de représentation yenn yi. jigéen ñi suñ fa taxawee say rongoñ day tuuru parce que da ngay wax bi may xeex na am nañu def relation de genre. équilibrer les relations mhm. def benn jigéen benn góor wala benn góor benn jigéen mhm. ñu koy xeex du woon n'importe quelle représentation tout à fait parce que yar gi daf ci war a feeñ dafa war a am ay critères loolu tamit ça nous a handicapé absolument parce que loolu tax na ñu indi ñi nga xamante ne du niveau du dara parité moo tax ñu teg leen fa ñu ñëw malheureusement ñoom xamuñu li leen yëkkati jigéen góor ñi jël di leen xeexee dëgg seen moroom yi naawle absolument tey ji tey bépp jigéen bu am cër jigéen ñi duñ ko bëgg du leen neex dañ lay xeex je parle de la majorité li gën a bari à tous les niveaux mm-hmm. man defar naa sama liste sama maire bi ma àndal bi yoon dama doon jàkkaarloog moom mm-hmm. ma defar sama liste promotionné ci jigéen ñi ëpp ci mais bi ñu nee suba la vote bi seen jëkkër yéen ne ku xëy dem ànd ak Ami Diallo wala voteel ko yow pare nga ci ci sama ci sëy bi mbaadu ma xëy di fu ma gestu gauche droite du ma gis kenn ma ne lii mooy nag sos na te ay jigéen aussi del di la wor di dem di ànd ak góor boo xam ne danga ko jàppale teg ko ci yoon won ko yoon mhm. ba mu dem mu beru ñu wor la dem ànd ak moom parce que mënuñu supporter yow jigéen bi nga nekk seen kanam man damay wax ne nous avons un diagnostic profond à donc c'est un problème nëpp national donc c'est un problème euh bo ne yombul yombul a régler yombul mais suñ ci jéemee dinañ arrivé à quelque chose parce que ak li ñuy wax joxon jigen ñep da ngay gis ay jigen de référence tout à fait da ngay gis ay mhm. jigen ño xamné man tout le temps damay wax dama am fierté mhm. di cité ku mel docteur Ndeye Fatou Ndiaye bi mhm. ubbi euh, euh, fee Noflaay dem nek bitim réew yor alalam ay njabotam mag waratul am souci mu nekk ci violence yi di xeex jël ak këram transformé ko fu jigéen am problème soo ko fa indee ay mu kilifaak lu mu munta doon mu nekk abri absolument mu nekk maison d'accueil et d'accompagnement mu nekk foo xam ne ñëw ñu maase la mhm. waxtaanal la delloo si sa xel surtout delloo si sa xel mhm. di la accompagner yana plein loolu ñooñu nag la état war a jàppale dañu am ay bàjjan national parce que li ñuy wax ñun hein? suñu culture mhm. euh, on n'a pas la culture euh, jël psychiatre wala euh, psychologue muy accompagner nit ah te loolu bàjjan uh-huh. ñëpp dañ ko soxla absolument parce que quel que soit alpha la personne à un moment donné de ta vie tu as besoin d'être écouté et d'être entendu absolument donc mettons yu mel noonu mais nous sommes des coachs de vie merci parce que fi ma di wax ak yow ni uh-huh. depuis trois jours ma ngi rek la benn cas xalé bo xamné xalé bo bu la mo uh-huh. amone borom kër bo siiw ñu dem ba divorcé borom kër bi ne ko xalaat naa ba xalaat dal ngay may la baat ba pare mais ngay dem di sëy ak beneen góor la ray. ah mu dem yóbbu ko si yoon